jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin ama gént nag di tukki su fekkente ne dalay dal ci gént lu ci ëpp baax na nag ci benn côté yenn saa yi dinay doon yokkute dinay doon aajo ju faj rawat na moto ci biiru gént loolu di ko dawal moom danay doon di nit ki sàkk di ko jot ala kulli xaalin xam naa di waxaale bokk yi nga xam ne dañuy bind seeni gént bëgg ku leen jàppale ñu ngi koy waxaat ay yoon yoon mboolem kii bind boo dee bind lu ñu xam aajowul ngay bind naan jàppale ma ñun dañ tontu ñëpp waaye dafa am ñoom dañuy bind ci bopp ñun suñ jëm bopp wallaahi lazim mënuñoo comprendre ne kii lii la bëgg a wax ba ci léegi nii rek am na ko dugal benn commentaire léegi nii rek hmm, commentaire am bi mu wax wallaahi ñun biñ ko liiree xam comprendre lu ñu wax nag ñame yalla ag na ci nak di wax lo xamni xamoko lool mom japp na ni dara luñ ko kep ki duggal commenter bu di mëno bindul leer eh, joxal ku la mëna bindal sok mënut nga jël numéro bi envoyer vocal japp na ni yom yom vocal mu xana japp na ni que ñoom ñëpp mën nañ ko comme sa gént mu nak la wax nak bo ne ko da am da ngaa jek jékki romb page bi ni romb la rek ngay xalaat say di bind loolu waxuñu ko waye ko xamni am nga gént mu leer nañ yittel nga xam gént gi lu mu bëgg tektale boko mënta bind bind mu leer ñu ngi leen di ñaan ngeen envoyé ñu vocal ci numéro 78 443 75 27 ñi nga xam tamit dañoo bëgg seetlu wala li si xaar mën nañ jël ñu ñam jafe-jafe ci wàllum tawat moo xam imoritu wala ndoxu siti wala néew kàttan incha allah rab ñooñu mën nañ jël numéro yi loolu ñu ngi koy ñaan baax a baax jarul kenn di wax naan dimbali ma nañ ci bàyyi xel bu baax nag euh, kon euh, di tukki war moto baax na ay takk der nag rawatina ay militaire ci biiru gént yu bari euh, loolu it mm, baax na loolu it nay doon yokkute waaye bu may doo tamit nit ku yàlla dimbale ku am kaaraange nit koo xam ne ay pexe daal yàlla mën a dogal dina ci mujj incha allah.